xintewoo leen mbëggeel te fonk mayi xelum yàlla rawatina mayu wax ci kàddug yàlla ndaxte kiy wax aw làkk waxul ak nit ñi waaye yàlla lay waxal ndaxte kenn déggul li muy wax dafay wax ay mbóot ci xelam waaye kiy jottali kàddug yàlla nit ñi lay waxal ngir yëkkati seen ngëm di leen dénk ko dëfal kiy wax aw làkk dafay yokk boppam waaye kiy wax ci kàddu yàlla dafay yokk ngëmu mbooloo mi léegi nag bëgg naa yéen ñépp ngeen di wax ay làkk waaye li ma gënal mooy ngeen di wax ci kàddu yàlla kiy wax ci kàddu yàlla moo gën kiy wax ay làkk su firiwul li muy wax ngir ngëmu mbooloo mi yokku kon nag mbokk yi su ma ñëwee ci yéen di wax ay làkk lu ma leen di jariñ dara su ma leen indilul dëgg gu yàlla feeñal walla xam-xam walla kàddu gu tukkee ca yàlla walla am njàngale noonu la mel itam ci yëf yi dundul tey riir ni toxoro walla xalam su li ci jibe leerul naka la nit mën a ràññee limbi bi toxoro walla buumi xalam di wax raxte dolli su liit gi jubul bu leer kuy mën a waajal xare ba noonu itam bu ngeen génnewul ay wax yu leer ci seen gémmiñ nan lañuy mën a xame li ngeen di wax dingeen wax ci neen xawma ñaata xeeti làkk am ci àddina te wu ci nekk am na lu muy tekki su ma xamul nag làkk wi ñu may làkk doxandeem lay doon ci ki koy wax te ki koy wax it doxandeem la ci man yéen itam ginnaaw dangeen a fonk mayi xelum yàlla jéem leen a ëpple ci li yokk ngëmu mbooloo mi looloo tax kiy wax aw làkk na ñaan ngir mu mën a firi li looluy tekki su may ñaan yàlla ci aw làkk sama xol day ñaan waaye sama xel amalul kenn njariñ kon nag lu muy indi bu may ñaan dinaa ànd ak sama xol àndaale ak sama xel bu may woy dinaa ànd ak sama xol àndaale ak sama xel walla boo dee gërëm yàlla ànd ci ak sa xol rekk kon ku musula jàng mbir yooyu nan la mën a waxe amiin ci sa cant yàlla googu ndaxte xamul li ngay wax dëgg la dangay sant yàlla bu baax waaye ki ci des ngëmam yokkuwul maa ngi sant yàlla ci li may wax ay làkk ba raw leen yéen ñépp waaye ci ndaje mbooloom ñi gëm wax juróomi baat yu am njariñ ngir jàngal ñi ci des moo ma gënal wax fukki junniy baat ciw làkk mbokk yi buleen melati ni ay xale ci ni ngeen di xalaate ci lu jëm ci lu bon mel leen ni ay xale waaye ci seeni xalaat mel leen ni ay mag bind nañu ci téereb yoon wi dinaa wax ak mbooloo mii jaare ko ci ay nit ñuy wax yeneen làkk ak ay gémmiñ ñi doxandeem waaye ba tey duñu ma déglu moom la borom bi wax ci noonu wax ay làkk firnde la ci ñi gëmul te du firnde ci ñi gëm te wax ci kàddug yàlla du firnde ci ñi gëmul waaye firnde la ci ñi gëm kon nag su fekkee ku jàngul mbiri kirist walla ku gëmul dugg ca mbooloo ma fekk ñépp di wax ay làkk ndax du wax ne dangeen a dof waaye bu ñépp dee wax ci kàddu yàlla te ki gëmul dugg fa walla ku jàngul mbiri kirist wax yi ñépp wax dafay wone bàkkaaram te àtte ko ba kumpaay xolam feeñ bu ko defee dina dëpp jëm ci suuf di màggal yàlla te naan dëgg-dëgg yàllaa ngi ci seen biir kon nag mbokk yi lu muy indi bu ngeen dajee kii am aw taalif kii am njàngale kii dëgg gu yàlla feeñal kii di wax aw làkk kee di ko firi na loolu lépp aw ci yoonu yokk ngëmu mbooloo mi su amee kuy wax aw làkk na ñaar wax walla gën gaa bari ñett nañu ko toppante te kenn di firi su amul kuy firi kooku di wax aw làkk na noppi ci ndaje mbooloo mi na waxanteeg yàlla ci xolam ci ñuy wax ci kàddug yàlla nag na ñaar walla ñett wax te ñi ci des ràññee li ñuy wax su amee ku toog te yàlla feeñal ko dëgg na ki doon wax noppi yéen ñépp mën ngeen a kenn kennoo wax ci kàddu yàlla ngir ñépp jàng te dégg li ñu leen di dénk ñiy jottali kàddu yàlla gi dañoo moom seen xel ndaxte yàlla du yàllaay lëj-lëj waaye yàllaay jàmm la ci mboolooy gay yàlla yépp na jigéen ñi noppi ci ndaje mi ndaxte sañuñu faa wax nañu doon jigéen ñu nangu ñi ko yoon wi tërale te su ñu bëggee laaj dara nañu ko laaj seen jëkkër ca kër ga ndaxte jigéen di wax ci ndaje mbooloom ñi gëm gàcce la ndax ci yéen la kàddu yàlla gi sosoo walla ndax ci yéen rekk la agsi su kenn xalaatee ni mooy wax ci kàddu yàlla gi walla mu xalaat ne xelum yàlla jagleel na may na nangu ne lii ma leen bind ndigalu borom bi la te su ko xeebee it ñu xeeb ko kon nag mbokk yi faruleen ci di wax ci kàddug yàlla te bu leen tere kenn muy wax ay làkk waaye nag na lépp di dox ci teggiin te aw yoon